Maître Amadou Diallo euh, ñu ngi lay nuyu. may fàttali suñu auditeurs yi nañoo ngi dalal tey ki jiite Amnesty International section Sénégal maître ñu wax ci rapport bi nga xam ne États-Unis euh, fësal na ko bu yàggul jëm ci mendicité ak trafic d'êtres humains Sénégal jàpp mm-hmm. nañ ne. Euh, doxu ci benn jéego nee nañ suñu dëkk bi euh, buñ sukkandikoo ci rapport bi euh, respecté wul li nga xam ne mooy norme minimale yu jëm ci lépp luy dakkal traite des personnes ndax ànd ngeen ci loolu. loolu comme ni ma la ko waxee sànq ci nasaraan Sénégal ñun waa Amnesty yàgg nañ ñu wax ni Sénégal ci côté boobu dafa laaj. Mm-hmm. soo xoolee soo doxante su biiru Sénégal rek dañuy gis taalibe yi doxantu. loolu yëpp euh, yàgg nañ ko ngañ yàgg nañ wax ni état bi war ci ay ay ay ay mesures pour yooyu dañ c' est que soo xoolee sur le plan législatif Sénégal am na jël def na ay jéego jël na ay textes. Mhm. mais dañuy xool textes yooyu suñ koy appliqué et eh bien dafa am difficulté yu mag a mag a mag a mag mhm. te ñëpp ñi nga xamante ne sax jot jot na leen topp suñu mel noonu daan leen daal daan dafa dafa dafa dafa dafa oyof trop ba tax na ni yaakaar ni côté boobu dafa mel ni Sénégal amul volonté politique. pour xeex mendicité pour xeex trafic d'être bi mhm. rapport boobu nag nga wax euh, liiruma ko mais ma jàpp ni euh, dafa dëggal situation bu xew Sénégal dafay bu yàgg ñun waa Amnesty ñu koy dénoncer léegi nag j'espère que c'est une bonne occasion pour Sénégal euh, delloo ci état du Sénégal delloo ci xelam taxaw ci lu mel noonu parce que loolu lay loolu ay xale surtout ay xale ak ay jigéen parce que nit yi nga xamante ne sont considérés comme des personnes vulnérables mhm. parce que ñooñu dañ leen war a donc loolu nag Sénégal suñu jógul il est évident que il faut ñu jàpp ni côté boobu ñu ngi violer ay droits des personnes quand même particulièrement vulnérables mooy xale yi ak jigéen yi. Mhm. maître gis nañ ne Amnesty comme yeneen organisation dañuy dox ci li ni mel yàgg tamit épinglé Sénégal ci yan ci lan la ñuy sukkandiku pour ñu wax ne étude bi moo tax ñu am rapport bi maanaam jëm ci li nga xam ne moom mooy traite bi par exemple. Non. xam nga ñun Amnesty International on est une organisation sérieuse et crédible. Mm-hmm. lépp lu ñuy wax dañ koy teg ci ay ay enquêtes yu woor ay recherches yu wóor dañ soit dañ des fois dañuy def appel à des experts externes mais ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc si yu mel noonu. Mm-hmm. ñooy wàcc dem def enquête après ñu établir rapport. Mm-hmm. wala ñun suñu biir sax am nañu ay experts yi nga xamante ne euh, am nañu euh, xam-xam boobu seen xam-xam daf ci màcc dañuy def ay enquête ay rap ay ay ay ay naka lañ ko waxatee ay interpellation pendant des années. wala pendant des mois balaa ñuy euh, teg rapport yi mel noonu c'est des gens yi nga xamante ne dañuy dem sur le terrain def seen liggéey après liggéey bi nag ñu jëbal ko jëbal ko euh, autorité compétente yi wala euh, ñu ko ñu ko yelloon mhm. ci base liggéey boobu la ndax dañuy def échantillonnage maanaam jël Dakar rek daal di ko def benn genre projection wala dëkk yëpp la ñuy jël def ci li nga xam ne mooy enquête ak étude non ñun moom suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu experts yi experts yi nga xamante ne ñoom suñu leen yabalee si fu ñu liggéey si benn domaine eh bien suñuy xob fépp fi nga xamante ne yu mel noonu am na fa dañ koy wàcc tabax euh, liggéey si pendant des années. Mm-hmm. Sénégal soo xoolee sax par exemple dans les zones euh, minières nga xamante ne trafic de de de personnes yi surtout ñi nga xamante ne jigéen ne dañuy jël ay jigéen yi jël leen ci ay yeneen leen fii leen defloo euh, prostitution yooyu bëri na dans les zones minières yooyu yëpp xam nañ ko parce que ñun ñi dem nañ fa. def ay liggéey bu bu bu bu bu am solo ba yëg pour mun a yëgal nit ñi lu xew si dëkk bi donc du affaire bi nga xamante ne rek lay yem. Mhm. mais léegi nag affaire taalibe nag je pense que yooyu moom jarul sax euh, ngay ngay jóge Dakar doo doxantoo si mbedd bi rek xale yi dañuy sol ci situation yi xam ne quand même loolu rafetul jaaduwul te loolu day violer ñun suñu législation interne bopp aussi ak ak traité ak convention internationale yu Sénégal Sénégal kon daal traite d'être humain am na au Sénégal ça existe bel et bien. am na am na Sénégal chaque jour nga gis ko parce que ñun ñii dañ ko tàmm tellement ñu def nekkatul dara mais c'est une réalité et peut être yeneen cas yi mooy prostitution yi mel noonu yooyu moo c'est pas c'est moins visible parce que souvent yu mel noonu guddi lay xew. mais am na am am na Sénégal am na Sénégal. <laughs> maître wax ci li xew ci prison yi tey jii ñoo ngi wax ne ay prisonniers dañoo am li nga xam ne mooy jàngoro euh, corona euh, lan moo war a doon euh, conséquence su li ni mel. xam nga mel ni moom soo ko déggee mu xew prison da ngay parce que mm. sans balaa kaa ñi am ay cas Diourbel ak ay Thiès yooyu gis nañu administration pénitentiaire liggéeyam rafet na ci dafa rafet na lool lool lool. ba tax ni quand même suñu see cas yi mel ni euh, dañuy tiit euh, peut-être ñu jàpp ni mesure d'assouplissement yu état du Sénégal euh, décrété moo tax peut-être gars yi am relâchement mhm. loolu nag il faudrait pas que mu am mu nekk ni état bi dafa war a gën a jàppale administration pénitentiaire yi pour jàngoro yu ba jàngoro yu bañ fa parce que seetlu nañ ni yenn geste barrière ñu ko war a def defatuñu ko parce que simplement Euh, moyens yi outils yi nekk fi masques yi ak gel hydroalcoolique yi jotuñu ci seen euh, détenus yi comme jotuñu dara luy jógee seen famille amuñu dara donc état bi daf ci war a euh, yokk yokk yokk ay moyen pour non seulement pour agent administration pénitentiaire yi mais détenus yi aussi ñu am ay masques am ay gel hydroalcoolique pour ñu mun leen aar wax nga ko sànq muy bracelet électronique bi tey jii adopté nañ ko sax ca assemblée nationale mën na bokk tamit ci li nga xam ne dina tax ba kaa yu mel nii duñ ko gis mais ndax Sénégal am na moyen yu politique boobu. waaye xam nga ñun affaire bracelet électronique bi mesure kii loi bi buñ ko voté. ñun waa Amnesty dañ ko dañ ko si rafetlu bu baax a baax a a baax mm. donc soo xoolee tamit euh, prison c'est pas forcément la meilleure solution pour régler les problèmes n'est-ce pas de personnes qui ont qui ont mal avec la justice. Mm-hmm. ñu rafetlu suñu bu baax a baax ñu jàpp ni tamit Sénégal su demee ba jàpp ni loolu mun nañu ko appliquer fii donc dina jël euh, matuwaay matuwaay yëpp. pour ñu mun ko appliquer parce que soo xoolee am na dëkk yu ko def te yooyu wax dëgg yàlla amul ay ay ay amul problème y a pas de problème particulier Sénégal naa ne suñu amee volonté politique bi mhm. parce que dama jàpp ni laajul moyens yu bëree bëree ba foofu ah, foog nga ne am nañ technologie bi foog nga ne am nañ technologie bi <laughs> non technologie moom léegi pose pas problème parce que on a des déjà les compétences humaines mu ngi fii mais ensuite il juste d'importer ces technologies là pour qu'on qu'on puisse les appliquer loolu dama jàpp daal il suffit juste d'une volonté politique pour mu mën a nekk yooyu yaakaar naa ne warul nekk problème Sénégal. ba tey ci prison yi jamono ji ñu ngi dégg ay grève euh, ci camp pénal sax am na jàppante diggante détenu ak garde pénitentiaire yi euh, tey jii euh, coronavirus bi dañ koo dakkal lan mooy jàngat bi. waaw jàngat mooy leen mooy prison prisonnier yi détenu yi ak situation mu mel ni toog lu yàgg gisuñu seen euh, mbokk euh, soo xoolee détenu yi toog nañu lu yàgg gisuñu seen mbokk yi toog nañu lu yàgg kenn indi leen lekk kon toog nañu yàgg yi nga xamante ne ñu ngi dund si situation yi xaw a mhm. état bi Sénégal nag su jëlee ay mesures d'assouplissement dañ jàpp ne bari ñoom sam dañ ci war a dañ ci a bénéficier wu mhm. loolu kay war nañu mën a comprendre seen frustration dama jàpp ne tamit waxtaan daal moo gën ba ñuy wut ay solution parce que fu mu nekk nii il est tout à fait possible euh, euh, euh, gouvernement bi état du Sénégal c'est vrai que indi ay lakk yooyu peut être mën na indi ay problème parce que du nekkul ay mesures de protection pour ñun détenu mhm. parce que dégg naa ni lakk yi ñuy lakk prison wax dëgg neexul wala sax baaxul mhm. nañu améliorer menu bi et puis ñu permettre leen aussi en respectant les mesures barrières ñu mun a rencontrer seen seen seen seen mbokk yi. parce que loolu tamit am na solo parce que tamit loolu tamit ça fait partie de nos droits mm-hmm. Mm-hmm. waa dakkal tamit gi ñu dakkal yenn procédures yi te pourtant ñoo ngi dégg ay célébrité seeni procédure ñu koy amal ci période corona bi ba tey tax na euh, grève bi sax bu ñu sukkandikoo ci information yi parce que nee nañ deux poids deux mesures la. waaw mën nañ ko jëlee noonu mais xam nga affaire bi daam c'est un peu délicat. parce que soo xoolee euh, euh, bon Dakar laa gis ni bu ñu lever mesures yi euh, audience yi dañ ko commencé waat parce que dañuy détecté ay yenn cas moo ñu suspendre audience yi ba tey te le 3 juillet normalement audience yi dañuy reprendre normalement flagrant délit moo doon am audience correctionnelle amuloon loolu war nañ ko mën a comprendre noon mais bon si période bi nag gisuma ni dafa am ay ñi nga xamante ne dañ leen jugé spécialement parce que dañu am ay privilège noonu audience correctionnelle yi ñépp la ñu suspendre mooy si yeneen régions yi audience yaa ngi am bon maintenant temps yi tamit am na grève bu greffier yi te yëpp tamit xam na gàllankoor liggéey bi mais bon nañ dem ndànk-ndànk rek xam na tamit situation bi euh, ñëpp lay gaañ mais ku nekk aussi dem ak xel dem ak xol ko gis nañ ne torture tamit ba tey ñu ngi koy tudd ci prison yi euh, mbiru René Capin Bassène ci audition am dégg nañ avocat am mu yëkkati li ni mel lan moo tax ba tey ji li ni am suñu réew. xam nga comme ñun wax am na si wax nañ ko cest à torture mooy ci prison mooy ci ci commissariat wala ci brigade gendarmerie loolu kenn waru ko mën a nangu Sénégal nag yàgg nañ koy wax ba léegi mu mel ni daal dégguñu moo tax ñun ñu jàpp ni soo xoolee agent de euh, police wala agent de gendarmerie wala parfois même agent de l'administration pénitentiaire xam ne dañ dañ impliqué aussi cas violence yi ñu ciy continuer si suñu xalaat mooy saa yi daan lu leen daan su daan amee dafa ndaw ensuite ñoom en général sax suñu suñu leen toppee suy mel kenn du leen sax dañ leen di noonu affaire euh, normalu finalement kenn du sanction yi dara moo tax pare ñu jàpp ni sentiment boobu sentiment d'impunité moom bu ñu am mooy tax ba léegi ñu continuer suy mel noonu maa ngi lay jox pour misaal muy affaire fallu seen bi léegi soo xoole euh, kenn attew ko soo xoolee tamit ay euh, xale xale bu góor bu ñu reyoon fële commissariat Thiaroye yàlla cela deux à trois ans dossier bi demawul fenn xam nga yooyu ni parce que simplement que agent pénit agent agent agent des forces de sécurité et de défense yi suñu defee njombe kenn du leen topp donc moo tax ñuy def lu leen neex moo tax ñu niveau état du Sénégal suñu mel noonu jël ay procédure def enquête yu gën a gaaw nit ki bu dee jàpp sa responsabilité établie daan ko daan bu dëgër pour ëllëg ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi seen possibilité euh, ñu ngi si situation boobu ñi bañ ko def mais ñu jàpp na aussi il ñu xoolaat formation agent de défense et de sécurité parce que bëri tamit affaire de formation la formation seen formation militaire yi wala formation en tant qu'agent mais aussi formation en droit de l'homme parce que il faut ñu xam ne nit dafa am àq ak yelleef donc nit mala donc su ñëwee si dañuy def seen enquête mais ñu bañ a jàpp la culture de l'avenir dañ ko war a dóor pour mu nangu loolu dafa war a denc ci Sénégal loolu nag ñu yàgg nañ ko xeex am nañu yaakaar ni Sénégal di loolu dina fi denc parce que même soo xoolee dernier rapport comité euh, des droits de l'homme sur la torture Euh, euh, euh, invité na Sénégal defal ko ay recommandation yu yu yu dëgër pour ne leen yooyu Sénégal dafa jël ay dispositions yooyu dañ mooy sax yokk améliorer formation agent yi yokk nombre bi yokk nombre magistrat yi mhm. yokk nombre avocat yi yooyu pour yombalal liggéey bi parce que tamit agent yi il faut dire que des fois ñoom tam ñu ngi ci ay situation yu métti métti métti métti doyuñu seen nelaw doyul seen salaire doyul loolu lépp rek mën na tax ñu nekk dans une situation nervosité pas pour justifier lu ñu def nii mais quand même tax des fois ñuy ay nit donc il faut que ñoom sax ñu nekk dans dans des situations apaisées ba ëllëg saa yu a liggéey si xel bu dal ñu tax bi finalement peut être loolu. violence bu nekk wala frustration bu nekk si ñoom ñu ko wàccee si si gars yi nekk en détention. Mhm. maître Amadou Diallo ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di gërëm bu baax madame. may fàttali